waaw waaw waaw waaw combat bi dem na pisada waaw combat bi dem na Fils Atou face à Thiatou Gouye Gui dem na Fils Atou face à Thiatou Gouye Gui waaw waaw Thiatou Gouye Gui face à Fils Atou Thiatou Gouye Gui face à faz a Fils Atou face à Thiatou Gouye Gui na ko jëli na ko na victoire tey bëri na daanu ndeysaan caatu guy gi daanu na caatu guy gi daanu na ndeysaan Fils Atou daan na ko waaw waaw mi ngi noonu caatu guy gi daanu na Fils Atou daan na ko Fils Atou daan na caatu guy gi waaw waaw Fils Atou na caatu guy gi ndeysaan lamb mi ngi noonu caatu guy gi bëri na waaye daan na ndeysaan mi ngi noonu daanu na daanu na daanu na ndeysaan daanu na. daanu na Thiatou Gouy Gui daanu na ndeysaan ndeysaan saison passée deux combats la bëri deux victoire waaw waaw noonu la fa demee ndeysaan bëri na daanu bëri na daanu. waaw waaw waaw waaw combat bi dem na. waaw waaw combat bi dem na fii sa ànd ngoon na Thiatou Gouy Gui. Caatu Guy gi waaw waaw Caatu faz gi face à Fils de Atou Caatu Guy gi face à Fils de Atou Fils de Atou face à Caatu Guy gi attention jëli na ko jëli na ko jëli na ko da koy daan daan na ko Fils de Atou daan na Caatu Guy gi Fils de Atou daan na Caatu Guy gi ndeysaan Caatu Guy gi saison passée deux combats la def deux victoire saison passée deux combats la def deux victoire daan Fils de Atou daan na ko waaw waaw mi ngi noonu Caatu Guy gi daan na Fils de Atou daan na ko Fils de Atou daan na Caatu Guy gi waaw waaw Fils de Atou daan na Caatu Guy gi ndeysaan lamba ngi noonu Caatu Guy gi bëri na waaye daan na ndeysaan mi ngi noonu daanu na daanu na daanu na ndeysaan daanu na daanu na Caatu Guy gi daanu na ndeysaan ndeysaan saison passée deux combats la bëri deux victoire waaw waaw la fa demee ndeysaan bëri na daanu bëri na daanu